lii sëriñ bi jox ko sëriñ Saliou Thioune jox ko mu mel ni soxna si deltuwaat na gannaaw ne jëfe na ndigal ah foofu moom duma ma ci mën a waxaat ndax euh, wax naa ci la ma ci wax defe naa ne ñëpp dégg dégg nañ ko kon nag noonu ma ko waxee nag maa ngi toog di déglu xool ba xam man réaction moo ci am foofa la loolu laay wax rek jàpp naa ne réer na trop comme ni ma ko waxee woon soppiku maanaam wàññeeku weesuwul ci moom am nañu yaakaar ne dana wàññeeku ndax nit danga nga toll foo xam ne euh, seytaane moo lay fëkk wala àdduna jay la wala alal bewloo la yooyu yëpp nag bu amee ñuy bu baa boo àggee ñu ci bari bay boo àgsee foofu dootoo gisati ku la wax dëgg wala dootoo nungooti ki ku la wax dëgg waaye am na ñoo xam ne bu ñu waxee danga dégg yaakaar naa de te boo déggee jàpp naa ne danga nga jëf de kon nag loolu mooy xool maa ngi koy maa ngi koy déglu du xool nan nan lay doxale ci fan yii di ñëw ba xam. mais sujet dafa jur euh, xaw a jur discorde ndax am na kilifa yu génn soutenir ko moom ci jëfam euh, bari na ci di ay réaction yu xaw a un peu simultané uute loo xam ni kenn daaw ko gis ci ci yoonu murit yoonu murit benn baat la woon benn kàddu la bu ñu ko waxee ñëpp maa si jëf amul nii laa ko gisee amul na la. waaw ñooñu ñooñu dañoo ñàkk solo rek ndax gàcce munul munul munul ëpp nga bokk ci kër Serigne Touba ñi dala wormaal ngir Serigne Touba di ñàkk seenu ñàkk di la ko jox ngir Serigne Touba Serigne tubaa nekk faay ki ko fi nekkal a ngi fi muy Serigne Sidi Mokhtar joxañ benn joxañ nga ne sëñ bi joxañ ne waaye xamoo ne Buur Géwél yoonu murit waaye amu ci yoon sëriñ bi digle na exécuté jafe sëriñ bi tere na bàyyi amul commentaire kon nag képp ku ko def. képp koo def xamul lan moo tax nga def ko waaye danga ko rëccu te dana am ñu la jàppoon loola nga def dana tax ñu bàyyi la ca ndax muri nag Sëriñ Tuubaa rek lañ gëm kenn ku yaakaar ne gëm nañ la nax nga sa bopp kuñ ci topp te du su ko mën doon sa jëm Sëriñ Tuubaa lañ lay xoole bis bala nga war a xam ne Sëriñ Tuubaa lañ lay jàpp tey nga ne bàyyi naa Sëriñ Tuubaa bis booba doo boo keesoo gis kenn Sëriñ Blaat jàngal nañu loolu nee na woon ni may mel nii ak li ma Sëriñ di jur jur bu ma xëyoon ne tey jii bàyyi naa Sëriñ Tuubaa Musaa Basiru mi du ma yoro sama setala gi kon nag képp ku bokk ci kër Serigne Touba ki fi nekkal Serigne Touba joxañ bañ joxañ nga nga wuuteeg joxañ booba rëccu ga ak euh, rëccu ga ci sa jëmmu rek lay dal te kenn du ko def te rëccu amut ci yow koo mën a doon nag ndax yoonu murid benn kàddu rek la am képp koo xam ne yaa ngi ci bokk ci kàddu googu nga war a tënku. te genn kàddu googu mooy gan mooy kàddu ki fi nekk Sëñ Tuubaa te ki fi nekkal Sëñ Tuubaa ci jamono yi mooy kan mooy Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na ko fi yàlla sunu boom bi bàyyi. jërëjëf Mbacke asalaamaaleykum wa